leen ni faalew ma ma ñi may menacé yéen rek lay xaar man mënu leen maa xoxotal jigéen bu jug ngeen jiit ko lu bon jiit ko caga wala ngeen tuumaal ko mais musuma ci wax lu nekk dégg naa ko ma ci wax waaye Sénégal ñoo ko moom suñu ay doom ñoo ko moom aujourd'hui on ne doit pas seulement changer parce que ñun bu ñu nekkee xale gis nañ fi ay injustice tey ñu màgg mbir mi changé wul tey bu ñu juguti li nga xamante ne moo ñu naqari dans 30 ans nos kenn duñu respecté duñu naw kenn duñu naw nañ bàyyi nit am seen liberté d'expression Assane Diouf na génn parce que jàpp ko te saagaw man tey wootew ma violon sama woote jàmm ak salaam au nom des morts tey damaa woote parce maa ngi liggéey ci presse ñu ngi bafoué liberté de la presse du yoon man du ma journaliste du ma journaliste je suis une animatrice télé kon je ma man lépp lu ma ñàkk te ñàkk ba Serigne Touba faalew ma ko bu leen neexee lépp ngeen tey ko mais vive le Sénégal te xale tey duñu bàq. actuellement je rappelle que ñu ngi nekk kër Ousmane Sonko di ko xaar man bokkuma Pastef kon bu ñu wax ni man ah dama ñëw di politique loolu bu ñu ko waxee ñu ngi tuutal nit ñi nga xamante ni tey Ousmane Sonko moo leen tax a jug nañ bàyyi di minimiser Ousmane Sonko parce que tey moo nekk chef opposition mu ñu bëgg ko wala ñu bañ ko man xaw ko te musuma bokk Pastef et c'est pour vous dire que du waa Pastef tey ñoo woote man maa toog ak sama waa kër génn pour naqaru li nga xamante ne yàgg naa ko xeex yàgg nañ xeex problème littoral bi yàgg nañ xeex li nga xamante ne mooy mënd bi te dañoo yàgg woote pour l'emploi des jeunes kon tey loolu yëpp laa boole ñëw jël si ko fii Ousmane Sonko moo nekk déclencheur bi bu ñu foon ni sénégalais nelaw saa su ne ñu ne yaa xeex ak sénégalais yi yaa ngi xeex ak jeunes yi leen te wan nañ ni yi nelawuñu te jeunes yi jug nañu au nom de la liberté au nom de la may ñaawlu xale bi ñu rey tey lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw ndax ñun benn lañu. di jaajëfal ñëpp di woo jigéen ñi ne leen indi ndox di woo ñoom Korka ñu ngi nii ko ci Ousmane Sonko ñëw leen indi ndox ngeen daal di koy séddale pacifiquement ñu jox ko homme yi ñu jox ko population bi. c'est ça Sénégal bu dee nee ngeen ni da ngeen gëm ni Ousmane Sonko moo tooñ d'accord na dem wuyu ji waaye wuyu yoon boo xamante ni dafa tëddee njaaxaanaay ñu bàyyi di xoxatal nit ñi encore une fois avant ba tey j'ai reçu des menaces ñu may xoxatal waaye dama bëgg ngeen xam ni man dama suur démb tey soog a ñëw tey dama suur démb tey soog a ñëw démb laa bëggoon annoncé que dañ maa doon menacé ma bàyyi mu jàll waaye tey il est temps de le dara ngeen ma mënalul dara lu dul yàlla ragaluma ko dara ngeen ma mënalul te tey képp koo xamante ne dee na te nguur gi la dee tey képp ku traitam tuuru te nguur gi la dee te lu dul yàlla nen tey population bi dafa ñëw wàcc koy dégg waaye ici képp benn force moo am muy le peuple sénégalais benn doole moo am muy le peuple sénégalais benn doole la am muy le peuple sénégalais et aujourd'hui le peuple est

Guy Marius Sagna waruñ ko bàyyi. waaw wàllu dañ leen di jaajëfal. ba pare xale yi bañ a sànni xeer. parce que loolu buntu la bu rey ñu. nañ ñu au nom de la liberté. man Sonko citoyen la kenn ko du ko xoxatal kon sama gars yi ci kanam kon sama gars yi ci kanam tey ku nopp ci complice même tey bu nekkee dafa da nga far ak ñeneen ñi tey war ngaa mën a jug jooy te ñi nga xamante ne tey ñu ngi ñu ngi leen di rey tey nous disons non au pillage waaye nag déglu leen li nga xamante ne moo discours bi gis nga ay du yem ci ci nopp borom waaw kon wasalaam sama gars yi ba ci kanam. Et bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les